ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen ndokkeel ci weeru màgg wi leen ndokkeel ci xeexu màgg bi ñu bàyyi ko muy guddi guñ doon màggal ak fàttaliku gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy guddi gàmmo ñaan suñu borom nangul ñu mboolem jaamu yàlla ñu ci def yépp jéggal nu it mboolem suñuy rëcc-rëcc eh, te tawfiqal ñu ñu tege ci siraatul mustaqim yàggal kilifa gi ci suñu kanam te weral ko kàttanal ko ñu àgg ñu ak moom ci liggéey bu màgg bi nga xam ne moom lañ koy lay liggéey ba mu àggale ko fu kawe njortam ci njëlbeen ñu fàttali ndigalul sëriñ bi ci teggiin yi ak yar bi bi ñu war a takkaayoo sëriñ bi mi ngi joxe ndigal di wax ne buñ jullee ba sëlmal ni ñu bari daan def topp ci ci moom topp ci oto bi de àndandoo di yuuxu ak a wax ca kaw ak a daw aka soow loolu ñu ko bàyyi buñ sëlmalee ne ñëpp ànd daal kenn ku nekk rek dellu këram ànd daal képp ku am yéene ñaanal ko ñaanal ko ci sa bopp ñaan ñëpp xam na ni ñu koy defee jarul àndandoo di yuuxu jarul àndoo di daw kon daal topp ci ginnaaw sëriñ bi ci oto bi di yuuxu ak a daw ak wax ca kaw loolu tere nañ ko bu ko kenn defati sëriñ bi tere na ko ne ko ñëpp moytu ku sëlmal rek nanga daal di wëlbatiku dellu te bu ko ge kenn toppi yuuxu wala ngay wax ca kaw wala ngay def dara loolu kon mooy ndigal li nañ ko fàttaliku bu baax te jàpp ko te xam ne topp ndigal mooy tax a jariñu lépp looy def te amoo ca ndigal euh, boo ca yaakaaree njariñ it mën nga ko caa bañ a am kon nag ndigal li mooy lii mooy bu kenn toppati ci ginnaawam ci ginnaaw oto bi di yuuxu ak daw ak a yëkkati ay kàddu ak a soow loolu bu ko kenn defati tere nañ ko ñëpp kon nañ ànd ak dal ànd ak yar ak teggin ku ko am yéene ñaanal ko nga ñaanal ko ci sa bopp ku ne xam na ni ngay ñaane loolu jërul daw jërul yow kon loolu mooy ndigal li euh, waxtaan wi nag waxtu wi xaw nañoo jot waaye mi ngi jëm rek ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne ci lañu bàyyikoo muy gàmmo ñëpp xam na ne gàmmo mooy feeñal mbégte feeñal ak cant euh, feeñal cofeel jubloo màggal euh, ku tedd ki nga xam ne moom la sunu borom feeñaloon ci guddi fukki fan ñaar ci weeru gàmmu ci at atum ñay ya bég ci feeñ googu nga xam ne xéwal gu mag a mag la bu sunu borom baaxee jaamam ñépp kon feeñal mbégte ak sant ci xéwal googu mooy maanaam gàmmu sant nag daa bokk ci ay ponkam kuy sant xéwal gi nga xam ne moom lañ la jox ba nga di ko sant xéwal googee danga koy jëfandikoo ca la taxoon ñu jox la ko ku la may mbubbu boo ko bëggee sant danga koy sol lépp luñ la joxit loo xam ne xéewal la goo bëgg a sant la tax ñu jox la ko danga koy jëfandikoo ca loola loola mooy bokk na ci ponki cant mooy sarfu sarful li muraadil munaam kon xéewal gi gi ñu yàlla baaxee ci guddi gu tedd gi te mooy feeñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo indi diine yi lislaam kon topp yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ak roy ko euh, loolu daa bokk ci ni ñu ko war a sante ñu war a sante yàlla ci xewal googu kon bokk na ci ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp ko topp ko roy ko màggal ko euh, kon nag loolu bu amee kon day jaa jaadu ñun ñëpp ñu yeesalaat suñuy pas-pas yeesalaat suñu farlu ci topp yonent bi sallallahu ak roy ko léppam nag lañ war a roy moom lañu wara a roy ci pas-pas moom lañu war a roy ci jëf yëpp waaye moom lañu war a roy itam ci jikko ak melokaan jikko jooju nag ak melokaan yi nag mooy li ëpp li gën a rëy ginnaaw pas-pas ci li ñu war roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax léppam ngëneel la waaye nag jikko ja ci la ko sunu boroom tagge ci alquranul karim ci ay barab yu wuute kon bàyyiwaat xel jikko ju rafet jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xel bu baax jéem koo roy jikko jooju nga xam ne famu mu ca yeggoon euh, bindeef yépp lot nañ ci yegg ca sëñ baa ngi wax ne wana kullu zi ilmin wa saayin wa rutbatin anil Mustafa fi xulqi lxaaisil olwi mu ne boroom xam-xam yépp ak ñi farlu ci jëf ju baax ñépp ak ñi ami daraja ci suñu borom ñépp lottu nañ ci yegg fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegg ci jikko ji kawe labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajizal kulla mu ne ko teraanga eh, ak kawe ak ngëneel eh, yépp yaa ko làmbaayoo li fi nga yegg ci jikko ju kawe bindeef yépp lot nañ ci dab ca eh, kon loolu lu mat a bàyyi xel la mu ne ko laqad jaa fi lqur'ani maa dallana ala taqaddumika al mu'ti al ataai al mukammali wala mukammili alquran dikk na euh, andil ñu ci yow tagg la tagg yoo xam ne mooy gën a firndeel di gën a leeral raw gi nga raw ñëpp te raw googu mooy lépp gi nga xam ne ku ko xam te topp ko da nga ci am ag may gu kawe da nga ci jële it ak mat laqad jaakum qad jaana maadihan lakum min allahi dil arshil azimil mufaddili mu ne ko aayab laqad jaakum ba ñëw ci alquran ci mujjug suuratu tawba dalay tagg euh, te te muy wax joo xam ci yàlla la bàyyi ko yàlla ma nga xam ne aras yu gën màgg ci li yàlla bind moom yàlla moo ko moom te yàlla mooy kii yor ngëneel te di ko joxe te moo la ko jox kon yàlla mu kawe moomee moom ci boppam moo la tagal boppam euh, ci aayab jaakum euh, kon roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom yu kawe ya donte kenn mu caa yegg it dafay nekkoon lu war ci bépp julit roy ko nag balay mën a nekk faawu nit ki jàng ba xam melokaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xam suñu diine ak xam jaar-jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xam jaar-jaari ay saxaabaam ak jaar-jaari gaa yu baax yi nga xam ne dañoo roy dañ ko roy loolu bokk na ci liy dimbale nit ki ci mu roy ay jikkoom kon ku bëgg a roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ka gën a jege ci taraw rek ka la a jege ci koo xam ci nit ñu baax ñi te kooku jiitu la ci jikko ju rafet gën laa kawe jikko rek nga tàmbalee ci kooku di roy te xam ne kookee boo ko royee yaa ngi roy yonent bi sallallahu alayhi kon loolu dana bokk ci li koy gën a jege yàlla kon mu ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax ci wàllu jikko gën cee farlu te xam ne mooy li gën a kawe ci lu ñuy nawee nit mbaa ñu ko koy bëggee baa ñu ko koy tagge jikkoo ca féete kaw nit ki mën naa bari xam-xam lool des ci wàllu jikko mën naa farlu lool ci jëf ju baax des ci wàllu jikko mën naa am sax ak may gu bàyyi ko suñu am fa daraja ba noppi xaw a des tuuti ci wàllu jikko loolu lépp mën naa am kon jikko moom da mu nekk daa kawe lool te yàlla dafa ñoo digal ñu roy yonent bi sallallahu alayhi ci jikko ci lépp sax waaye rawatina ci jikko walakum fi rasulillahi iswatun xasana buñ delloo kon ci alxuraan nañ ci fekk ay aaya yu bari yuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci aaya boo xam ne da ko koo tagg tagg woo xam ne daa tënk tagg yépp muy wa innaka la ala xuluqin azim mooy nee na ko daal yow daal jikko yu jikko yu kawe jikko yu rëy rëy rëy jikko yu sell sell yu màgg a màgg yu tedd tedd nga am yoo xam ne xam dayo ba ak wax ko mbindeef lot na ca euh, kon tagg na ko ci mboolem jikko yu rafet yépp taggiin wu wu jég wu kawe wu mat wu rëy kon ci jikko yépp la ko tagg waaye nag buñ delloo ci alxuraan dañ fekk mu di ko tagg ci ay benn nati jikko yoo xam ne ci jikkoom yam ko tagg yi euh, tam tam te wax jee ëmb ko ca la bokkoon bokk na ci jikko yi ñëw ci aay bi sëriñ bi tudd muy laqad jaakum laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufun rahim mu ne am ngeen yonent bu yàlla yabal ci yéen mu bokk ci seenu xeet yéen doomu aadama nekk nit waaye day ku ku ku am ku ku amuk ci yéen koo xam ne lépp lu leen di sonal rek da koy metti bu sañoon dara du benn coono du ngeen ko am lépp luy coono bu jëm si ci yéen rek lum mu ca man dana ko fànq ci ñaan boroomam ci digal leen ci tere leen ci taxaw leen euh, kon loolu bokk na ci lim ko taggee mooy am ak yëg ci jaami yàlla yi rawatina ci ci ci jullit yi am ci ñoom ñëwante ba lépp luy seen coono mu bañal leen ko te lu leen ca dalit mu metti ko lool tiis ko lool ba lu mën mën ci fànko yi dana ko def na ku xër ci yéen la nga xam ne lépp lu leen di jariñ ni mu bañee lu leen di sonal noonu la bëggee lu leen di jariñ kon ku xër a xër la ci lu leen di jariñ fii ci àdduna di leen jariñ fële ci àllaaxira ba tax na fu mu toll di leen digal lu baax di leen moytuloo ab safaan di leen laabiire di dox ak a wax ak a jëf jëf yu leen di euh, wan ne nii bu ngeen ko defee da ngeen jariñu ci àdduna jariñu ci àlaxira waaye nag ku amug ñewante la ku taruk ñewante la ci yéen ku rëy yërmande la ci yéen kon lii bokk na ci jikko yi nga xam ne tagge na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yërmande ak ñewant ak yéene ñi njariñ te bañal leen ay lor tey def kem kàttan ngir loolu mën a am bokk na ci lim ko taggee mooy neex deret neex a neex a àndal nooy nooy gu ànd ak gu yëggul cig doyadi euh, fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galisa alqalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin nee na ko ci sababu sërmande ju màgg a màgg ji yàlla am ci jaamam ñi moo waral mu yónni la nga nekk yërmande jaam ñépp bokk na ci la gën a fésal yërmande jooja nag jikko ju rafet jim la defal ba nga nekk ku rafet jikko ku neex a dëkkal ku neex a jaxasool ku nooy lool te bañ a doye di nga xam ne boo doonoon ku ñaaw jikko wow xol kon ñi dañ ñëpp daañ la bàyyi kon tagg na ko kon ci jikko ju rafet ak nooy ak neex a dëkkal ak neex a jaxasool kon yooyu yëpp ay jikko la yu mat a bàyyi xel tagg na ko ci kersa nee na da ngeen di bu leen duggati ci kër kër yonent bi di fa toog rek di wax di di bañ faa jóg ndax yéen a ngi def loolu mu am ci kersa ci yenn lool te rus leen ko wax yàlla nag moom du amul kersa ci dëgg kon tagg na ko ci kersa tàgg na ko ci jikko yu baree baree bari kon ñu gën a bàyyiwaat xel ci wàllu jikko gën góor góorlu te xam ne nit dana am daraja ju kawe fa suñu borom te ay jë ay jëfam sax du bari lool waaye jikko may rafet te ku gën a rafet jikko yaay gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa gën a jege ak mat kon ñu ngi wàcce kàddu gi di fàttaliwaat ndigalul sëriñ bi mu jëlee ba sëlmal bu kenn jógati topp ci ginaa oto sëriñ bi di yuuxu ak soow ak a daw loolu bokkul ci teggin ni ñëpp ànd ak dal te te ñaanal ci ak dal rek ak suufe suufe kàddu kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 على السلام هيا على السلام الحمد لله نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا نكون بهما للدخول في حرمة النبي أهلا ونستزيد بهما من محبته ما نودي بعض واجب جنابه الأعلى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا نحيد عنها بحول الله ولا نحول ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطيب الطاهر الزكي الفروع والأصول أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانيه وبادروا بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة واجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها واغتنموا الأوقات والأزمان وفضائل الشهور عند إقبالها وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وسارعوا فهذا أوان المسارعة وراجعوا التوبة من ذنوبكم وهذا زمن المراجعة واعتبروا وفقكم الله وقد حق لكم الاعتبار وانظروا بعين الفكرة والاستبصار وتعرضوا لرحمات ربكم ونفحاته فكونوا ممن استجاب لله ولرسوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وصونوا العبادة بما مما يكدر من صفوها aw yacuudu ala alxasanaati bi maxwiha الحمد لله الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار الذي خلق العوالم ليريهم ما لحبيبه صلى الله عليه وسلم من عظيم المقدار وزين به الأكوان وأضاء به الأنجاد والأغوار وأظهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى وما ياتي من الأحصار ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوزار أما بعد فيا عباد الله laqad istayqaza man istayqaza min sinatil ghafalaat falam yaqta'hu an mawlaahu qaati' wa faaza man tabaa'ada an shirki an shirki shahawaat falam yamna'hu min al-jiddi fi al-ibaadati maani' فكان لله وبالله في الحركة والسكون قائما بأمر الله لا يفارق الذين يتقربون إليه ويتعبدون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عباد الله اسمعوا قول الله تعالى إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وتوجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وشمروا عن صاعد الجد للعمل الصالح إن خفتم الفوت وسارعوا لأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا آمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين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

sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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

الصواب